day dara bismillah attew Khalifa Sall ba day dàq nañ ko dee tribune yéene kaay ne Khalifa Sall kay waaw dana xam nag ëllëgam day ñetti fan ci weeru janvier 2019 jàpp leen nag ay avocat Khalifa Sall day lañ doon sàkku ah mooy nag ñu ajoon aada boobee waaye attekat ba daa bañ maître Ciré Clédor Ly waaw moom nag jàpp na ne gis nga tribunal boobee ah daa dugg nag ci am erreur woo xam ne day lu leer lu leer erreur bu leer sur quotidien kalaame gi nga xam ne kon maanaam ko nag ca de moom Khalifa Sall moomee ah dundam nag wala ëllëgu politique am day waaw jàppal na ñetti fan nag cooru janvier gi danañ ca xam dara maître Ciré Clédor Ly mi daal bu amulee jaay doole rek waaw Khalifa Sall day nekk candidat par force les écoles ne kaay ne en tout cas le day la mbir mi leer Khalifa Sall dana nekk candidat waaw wala déet en tout cas nañ rek baa ngi bëgg a yàgg nag ay avocat wu Khalifa Sall day li ñu bëgg daal mooy atte bi nu mu gën a yàggee gën a baax waaye dal nañ tamit tey ci kaw attekat bi di Amadou Bal waaye takk der yi nga xam ne indi nañ leen fa démb tey sakan nañu lool te ay ñooñu Khalifa Sall tamit tey dañ leen a poussé ne enquête yéene kaay ne xaar bi nag nu ngi bëgg a mitti nag da ngay dem kay ba mer nerveux dossier Khalifa Sall bay bëgg a yàgg waaye ay avocat am tey bu ñu amulee sursis waaw la ñu bëgg nag mooy cour d'appel ba day dogal ba nga xam ne jëloon na ko doone waaw dañu ko nii la daal di koy gase maître Ndoye waaw nee na war xam ne suñ ko dalay katan day ba tribunal yi nga xam ne ñoom ñoo nekk buñ ñuy teg suñuy anduwaay di wax suñu bopp maanaam di ñu à l'ordre source année ñetti fan daal ceeru janvier lépp leer maître Boursou Pouye bokk ci ay avocat wu Khalifa waaw nee dogal bi nga xam ne day tribunal bi la jël na ko ne du mbir bi waaw mais jàpp leen ne kon défense bi day mi juróom benn laa lay wax nii ci ay pourvoir yoo xam ne yéreguñ ko maître Babacar Cissé nee na tribunal bi day di cour suprême waaw ay avocat wu te conseil constitutionnel day dañuy teere ji waane Karim Wade mi lee benn quatre heures yéene ak évidence yéene kaay ne coow li bari na ci Karim Wade gisee na ak Macky Sall kon ca Paris ñi ànd Karim Wade day coalition Karim président waaw nee nañu loolee nekkul dëgg c'est pas vrai te Macky Sall ak ñi mu àndal day ñoo bëgg a nëxal indi tuuti xelu sénégalais yi nga xam ne day dañoo fas yéene votel Karim Wade laa la wax exclusive yéene kaay ne ñi nga xam ne ñoom ñoo ànd Karim Wade mensonge te nag du ñu am mbéteel bu ëllëgee bu ñu la déggee ngay xas ak atam dëmm kii di Macky fukki milliards ak ñaar nga jox ko Adama Bitogo ñaar fukki milliards ak juróom-ñeent yu Prodac yi lay anañu ñeent fukki milliards building administratif pétrole bi téeméer boo jël juróom-ñeent fukki di quatre-vingt-dix pour nga dem jox ko Aliou Sall rek ko Macky Sall mën a yeedee ay nit ci lu jëm ci wàllu gu baax Mimi Touré rek li ñu da laa désarmé nangu 24 heures yéen a kaay ne autoroute Ila Touba ji day waaw président Macky Sall inauguré na ko démb waaye tamit battre na campagne de maa la wax lii laase en tout cas xalif général day Macky Sall merul démb ci kanamu sëñ bi source aane mobilisation bu mel noonu day ma la ëpp na dama ne la Mouride day la leen xalif ba waxoon la def waasoog ndigal génn leen ngeen gasandul ma sama gi ma la waa Touba day bàyyi nañu Macky askan source aane ko may ma ma yeggali may ma ma yeggali soxna maam xarit Mbacke day la ko Serigne Mountakha waxoon def na ko mobilisation waaw termine yéene kaay ne soxna Fatou Ndouy tamit day mu Serigne Abdou Karim Mbacke mobilisé na de ngir gàttal lu kon président libération yéene kaay ne boo bëggee daal waa Touba tapis rouge la ñu lalal président Macky Sall laa la wax Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacke waaw ne ko xalif day di Serigne Mountakha nee na mi lay ñaanal ngir rek lay saf maar day taali njuuj njaaj kay escroquerie parce que nit ñi nañoon xalaat ne autoroute ila waa joojee du am fay gratuit waaw waaye ñaari junni ngay fay dem bi junni ñëw bi junni muy dix mille ëpp na dafa nguuru Sénégal gi day alalum doon gëmloo nit ñi ne moo ko financé dara nekku ci dëgg wax autoroute boobu waa Chine ko financé Ahmed Youssouf Ben Saloun Macky again ci yéene kaay gi waaw nee na en tout cas mi lée dafa war a am deuxième mandat de ah, ah. Youssouf ne waaw ñun dee loolee la ñu gëm parce que 2011 ba ni lée ñi ngi nekk ak président Macky Sall Ranérou Cheikh Amady Diane Ba directeur général impôts domaine ci direct info nee na ñi ndey dañoo am yaxin xel mu dal ne président Macky Sall mi lée day gagné Cheikh ba ne lii maa ba ca ngoonu février ngeen xam ne lépp dëgg la lii dëgg kay terminé yéene kaay nee na mooy homme de l'année ren ji waaw horizon sans frontière day nee kenn mënu koo nekk ku dul Bougane Gueye Dany Boubacar Seye day ak ñamoo àndal waaw nee nañ li tax nag jël Bougane Gueye Dany def ko a di tukki libération yéene kaay ne en tout cas rapportu IGE ci jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy na ci bayooru bourse étudiants yi mai 2018 waaw musiba bi day ma di taw ñaan bokk na ca di itali te le ministre ba wax loolee nekkul dëgg ne enquêteurs yi dañoo seetal direction des bourses loolee amul li am kay la Boubacar Camara wax ci la tee mooy yéene Dakar Times quartier électoral bi day am na problème lu tolloo ñeent fukk ak ci ay bureau de yoo xam ni day fictif la ay bureau yu amul la libération yi ne kay li am kay mooy nguur gi dee fay nañ salaire yi tey le 21 maa la ko wax président Macky Sall sant na Ahmadou Ba ne la fay salaire u te da fay tamit salaire u fonctionnaire yi nee nañ dodo Noël la Macky Sall Père Noël <laughs> sama maam de lii la wax booy liggéeyloo nit bu dee mën naa ne bu paree balaa ñax waa waaw fay ko boo paree mëneel